Ibrahima je le dis et je le répète dama koy wax sax bi de vive voix di ko dégg pour ñu doon comprendre lu may bind soo dee dugg ci prison boo ñëwee dañ lay futti ba nga set wecc comme ni la sa yaay juree dara du la topp say say yére wala mu nekk sa lekk lépp loo xam day dugg lekk yi sax parfois dañ koy caxat-caxatee ba yow bu ñëwee dootoo ci am sax envie lekk ndax nee na dañuy censure pour xool ba xam dugaloo dara ci biir plat bi mm-hmm. ba pare say yére tamit dañ koy topp di ko fëgg fëgg fëgg fëgg fëgg ba buñ passé woon sax boo ñëwee dafay froissé ndax ñoom ni la kalamalee dugaloo la ko ñoom duñ la buñ fëggee dañ koy kii noonu rek joxaat la ko mm-hmm. donc kooku noonu ba pare nga nekk koo xam ne tu es entre quatre murs mm-hmm. soo génnee même bu fekkee da nga am peine nga génn dem di liggéey travaux soo dee génn tu par pas seul garde moo lay accompagner. gàddu mooy prison bi maanaam travaux yi non non boo dee génn pour def pour euh, li ñuy wax mm. corvée parce que suñu waaw suñu loolu mu ngi am jigéen ñi soo amee peine 6 heures du matin dañ lay yee yéen yéenay génn bale ji mbedd bi mbedd bi wër camp kii bi waaw bi wër camp bi mm. bi wër camp euh, prison bi yéen a koy dem bale ji te boo ko dee def garde moo lay accompagner soo dee dugg dañ lay fuy garde tamit moo lay dugalaat biraama kooku noonu bu dara duggee fa est moom moo ko dugal nan waxante dëgg indirectement nan la koy dugalee indirectement. Ah. dugal indirectement boobu noonu nag ci laay ñëw Birama c'est réalité je le dis ici et je carrément. Mm-hmm. gis nga prison bi moom ak Sénégal fii si biti ñooyam boo amee xaalis yow loo yow bëggal. soo bëggee day am. loo fa bëgg am ko loo fa bëgg danga ko fay am. na nga yor xaalis rek na nga yor xaalis. tout ce qui est interdit dans la prison soo amee xaalis boo bëggee mu dugg day dugg. d'accord daf lay je l'assume la parce que man dama toog di ko gis. yow amal rek. amal rek même même les pots Nutella en en verre yi ñu naan ay du du du du dugg ci biir prison yi parce que verre la atuma ma nit mën na koo sànni toj mu jël jël ko arme def ko xeexukaay foofu noonu da ngay gis koo xamante ne daf koy gàddu daf ko ci biir siwoom te ñun boo boo waree dugal ñu ne la no caoutchouc bi mooy dugg wala bu verre bi ñëwee da ñëw ba ci bunt bi nga sotti ko def ko si pot caoutchouc nga yóbbu ko mais du dugg mais quand tu as de l'argent non doo nekk ci néeg yu bon yi dañ lay jël yóbbu la ci néeg VIP yi parce que yow borom daraja nga ndax am na koo xamante ni fekk nañ foofu si biir prison bi nekk borom daraja ñaari néeg ñoo fa nekk néegu arrivante mais chambre 3 ak chambre 2 boo ñëwee foofu nga foofu nga war non war a njëkk foofu nga war a njëkk a jaaree moom bi mu ñëwee danga koo tëbal néeg yooyu noonu chambre une lañ ko jël yóbbu ko directement si chambre VIP la bokk c'est-à-dire li tax ñu naan ko chambre VIP mooy amul tëdd suuf hmm. matelas yi da nga ko superposé ba mu mel ni comme genre lii mm. donc yow da nga foofu ngay tëdd foofu la dem directement bi coow li bëree mu am benn détenu bu mu fa jàppanteel boo xamante ni elle n'a pas peur de tuer parce que moom dafa la koy wax carrément moom moom boo leen jàppante ma da lay def loo xamante ni da ngay xam ni kii bu bu jé bu ay pexeem sotti woon daf lay rey mm-hmm. te mu ngi si chambre VIP yi foofu noonu waaw elle avait même l'enfant de sa de sa de sa de sa de sa mm. moom ragalul lu muy def ba pare bi coow li jibee kooku après si leen génnee entre guillemets autorité boobu noonu yóbbu ko néegu mineur mag lan lay def si néegu xale. kon am na ay mineur ci biir prison bi. am na mineur boo xam doom sax pour wax wax. agression sexuelle yi nag dëgg ah. yow làmbante ba foofu noonu dafa am dëgg la. <laughs> c'est la vérité c'est la vérité c'est comme na la feenee lesbianisme bi sax laa la wax ça saute à l'œil y a des y a qui s'assume carrément en portant des habits hommes ba pare di dox di njaab njaabu góor pour montrer aux gens ni su fekkee da dangeen bëgg far wala je sais pas. je suis là parce que je me je me déclare corps homme.